miina fil awtaani wa sakani nee na doxandéem bi day fa mu nekk nit ñi dinañ ko bàyyi xel am àq di ñu ko bàyyee xel waaye kon kan mooy doxandéem bi tumuranke dëgg dëgg dëgg nee na mooy doxandéem bi ñu tëral ci jaag nga xam ne lu dul càngaayam loolu topp ko mu wax ne sama tukki day tukki bu sori la te yóbbal bi ma yor mën na ma bañ a doy te sama kàttan mi ngi néew te dee mi ngi may dab mi ngi may sàkku si safri baidun wa zaadi lan yuballigani wa quwati daufat wal mawtu yatlubuni mu wax ne te am naa ci bàkkaar day lu bari loo xam ne sax xëy na xamatuma ko lépp wala xaw ko lépp te yàlla xam na lépp moo ko peeg ñaari nit ki bu dundee ñeent fukki at rekk mën na am bari na lu mu jëf lool loo xam ne moom sax yenn yi fàtte na leen te yàlla fàttewu ko ni ko alquran waxee yàlla peeg na ko dajale na ko doonte fàtte nañ ko waaye yàlla day mu wax ne maa ahlama allahu anni xaysu am halani yàlla suñ borom ku lewet la moo tax ak bàkkaar yooyu yëpp mu may ma mu may ma ab diir mu xaare ma wa qad tamaadaytu fi danbi wa yasturuni ci ak càggante ma wéy rekk ci samay bàkkaar donte yàlla mi ngi may sutural mu teg ci wax ne tamurru saaatu ayaami bila nadamin wala bukain wala xawfin wala xasani samay waxtu mi ngi romb rek ak samay bis mbokk yi at mu nit ki jàll ñaare nag mbégte rek lay doon ñu ne fin d'année bi nàngam nangam léeg-léeg nit ki séentu ci promotion bu mu war a am léeg-léeg nit ki feete ko weer wu jàll weer wu dee ñaari nit ci séentoo ci ab payooram wala yeneen yuñ ko dégg bis bu jàll noonu waxtu wu jàll dafay fàttali nit xew-xew boobu noogu jàll sax war na koo fàttali doomu aadama bi ndax luy jàll la te du dikkaat mu wax ne kon bis yi di jàll rekk weer yi di jàll te loolu jurul ci man nag ma tiit ba jaral ma ma jooy te rëccu weesu woon léeg-léeg doomu aadama bi càggante dina ko dab ba mu def lu jaaduwut raw bëti nit ñi fekk na suñ boroom mi nga xam ne yaalamu xaainatal ayun wa ma tux fi sudur mi ngi koy gis mu wax ne ana alladi uxliqu al abwaaba mujtahidan ala al maasi wa aynullahi tanzuruni léeg-léeg ma tëju di mooy yàlla daw bëtu nit ñi ndeke bëtu yàlla mi nga xam ne dara du ko làqu mi ngi may gis yaa zallatan kutibat fi gaflatin dahabat yaa xasratan baqiyat fi lqalbi tuxriquni ci càggante goo xam ne def naa ko ci waxtu wu gàtt yàlla bindal ma ko peegal ma ko nga xam ne lu dul njëggalam danga ko fa fekk boo dee ko am ndimbal sax mu des doon rëccu gu mel ne luy nekk sa xol mu jural la nga jéggalu yàlla mu mën laa jëriñ mu teg ci wax ne daani anuuxu ala nafsi wa andubha wa aqtau dahra bitazkiri walxasani tey bàyyi leen ma kon tey balaa maa kenn jooy ma jooy sama bopp ma rëccu ci sama bopp ci lii nga xam ne jaar naa ci lépp ma fàttaliku samay jaar-jaar mu jural ma njàqare ka annani bayna tilka al ahli muntarixan ala al firaashi wa aydihim tuqallibuni waxtu woo xam ne dafa ñëw ma tëdd ma tëdd sama biir njaboot mënatuma mëna mënalatuma sama bopp dara bu ma wëlbati koo sax ñoo ma walbati seeni loxo moo ma wëlbati mbokk waxtu woowu doomu aadama bi nga xam ne kàttan bu mu amoon dina ko réer léeg-léeg nit ñi dañuy tollu ci ah moom day tey naan na kaasuruy bi ba mu jeex daal di koy réyal di ci sant léeg-léeg ñu ne meew biñ ko joxoon de jàll na léeg-léeg ñu ne lu ñu dugal ci gémmiñ gi mu génnaat wa waqad ataw bi tabibin kay yuaalijani walam ara tibba hada al yowm yanfauni hada al yowma yanfauni nee na samay mbokk docteur bu nekk spécialiste bu ne ñaankat bu ne mocckat bu ne fu ne dinañ fa dem waaye tey day gisuma benn médecine wala benn médecin bu ma mën a jëriñ benn ñaan wala garab bu ma mën a saafara washtadda naz'i wa saara almawtu yajzibuha min kulli arqin bila rifqin wala hawani tartar yooyu wëy sama gru tàmbali di rocceeku bu ko malakul mawti di rocci nga xam ne amul benn léeg-léeg benn ñeewant wala def ndànk ndax ndigalub suñ borom lay jëfee wastaxraja ruuxa minni fi tagarguriha wa saara riiqi mariran xiina gargarani noonu la ruux di génnee ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasuulullaah ashhadu anna muhammadan rasuulullaah kon ñu fàttali ne ñi ngi waxtaane tey loo xam ne digle bi yonent bi la sallallahu alayhi wa nga xam ne bariwaa na lum ko daan fàttali ne wala lum ko daan digle di wax ne bari leen loo leen di fàttaliku liy màbb bànneex yi aksiru min zikri hadimi lazat mbokk yi eh, walla lu sedd sa xol saa bu la gaaree rek xamal ni loola dana ko màbb bis boo xoolee sa waajur wala ngay nga koy jëfal ni mu neexee sa xol xamal ne haadimi lazat dana mës sa dox sa digg ak moom nga xool sa njaboot say doom wala say soxna nu ñu mel sa xol xamal ne haadimi lazat dana mës a dox sa diggante ak ñoom mbokk yi sa kër gi ak ni ngi ci bégee ak ni nga ko liggéeye walla sa alal lu mën a doon xamal ne haadimu lazat dana mës a dox sa diggante ak moom pal gi nga am man sa boobu ak bu mu mën a doon boo ko ñàkkut itam bis dina ñëw xaadimul lazar dox sa diggante ak moom kon digle bi yonent bi la sallallahu alayhi wa ñu di ko bàyyi xel ñu wéy rek ci fàttali boobu nga xam ne ci zeynul abidin moo ko defoon wax ne bu ma jàllee loolu yépp ba bis li ma amoon ci kàttan réer ma ma tëdd samay njaboot wër ma pexe bu ne ñu def ko fekk na pexe jeex na dogalub suñ borom moo ci des foofu doomu aadama bi di jaar yépp ba malakul mawti di ko dikkal di rocci ak ruuxam mu wax ne ginnaaw bépp pexe ci am paj sama ruu tàmbali di rocceeku ak ni ñu misaalee waxtu woowu roccig ruux ni mu taree ci lu amul benn ñeewant ginnaaw loolu yaakaar daadi jeex ci lu yëkkati ka tëddoon mu wax ne wa xammaduuni wa raaxal kullu sarafu xam ngeen ni ki toll foofu njabootam wër ko ñaari ku xëy dafay ñëw waaye ba malakul mawti ñëw jëfee dogalub suñ borom ci moom ginnaaw bu ñu wàccee bët yi ni mu ajoo ndax xam ngeen ne waxtu woowu ñaare bu ruugi di rocceeku dafay ànd ak bët yi di aju léeg-léeg sax dafay ànd ak xëccug noogoo xam ne du wàccaat nee na ñu wàccee ko ku ne daal di jóg nag ku ne am foo jëm ñee ngi wuti oto bu yóbbu ñee ngi wuti ay këyit ñee ngi woote di yëgle ñee ngi tàgge boobu fekk na man sama cër ci àddina jeex na luy amati ñeneen la ginnaaw loolu nit ñi gënoon a jege tey ñooy taxaw ci yi ñu war a def ci yow moo tax mu wax ne wa qaama man kaana xibba nnaasi fi ajalin naxwa mu yatii nii li yaxsula ni ñi gënoon a bëgg ñi ñi ma gënoon a bëgg gënoon ma jege tey ñooy fexe nu ñu ma sange nu ñu ma sàngee nu ñu ma jébbalee suñu boroom nee na bañ ko tegee foofu xam ngeen ne mu ngi tàmbalee xaside gi ci laysal garibu gariba shaami wal yamani innal gariba gariba lahdi wal kafani kan ba ñu ko tegee foofa ca jaag ba wala fa ñuy sangee neena kenn ci ñoom ñëw di ma sang sotti ndox ci sama yaram mbokk yi nit ku ne war nay bàyyi xel ne mbubb mum sol mu ne mënees na ko koo summil kuy denc ku ne denc ba lu mu ruqe ruqe war ngaa bàyyi xel ne bis keneen dana génne denc boobu te nii mu koy waxee kat tëdd sa njaboot wër la di jéem di faj mbokk yi dafa mel ne sax moo gën a woyof bi nga xam ne ci bette gu yéeme lay ñëw donte dee ci bette rekk lay ñëw waaye ñaare ka tëdd toll foofu ñu naan ruy ba jàll naag jàllul pexe yi jeex ci mën na am mooy gën a woyof beneen kon nee na kenn ci ñuy sang ñëw summi samay yére tàmbali maa sang wa awdauni ala al alwaaxi muntarixan wa saara fawqi xariirul maa'i yanzifuni ñu tëral ma foofu di ma sang di ma setal ci ndox mbokk yi ñaare léeg-léeg nga gis kilifa goo xam ne ka koy jëfal yooya ba muy dund kooka mënutoon a yegsi ci moom bu ko gisoon dana ko jafe walla bu ko bëggoon a gis dana ko jafe waaye tey ñu tëral ko ci kanamam summi ay yéreem mu war mu war koo defal cangaay loola bu noppee ñu ñu solal ko nag yére yoo xam ne wa albasuuni siyaaban laa kimaama laha wa saara zaadi xanuuti xiina xantanali xantanali nga xam ne ñu solal ko yére yoo xam ne xam ngeen melokaan wi deseetul ci yóbbal lu dul yére yooyu ak xëy na gëtt goo xam ne dinañ ko ko defal mbokk yi lu mat a bàyyi xel la nga xam ne lu nit ki amoon rekk waxtu woowu dana ko won ginnaawam ba mu des ay jëfam noonu xam ngeen ne la ca topp wa axrajuni min ad dunya fa waa asafan ala raxilin bila zadin yuballigu nii nee na ñu génnee ma àddina nag cëy cëy sama sama yoon wii nga xam ne sama tukki wii nga xam ne aw ma yóbbal boo xam ne mën na maa yeggale wa xammaluuni ala al aktaafi arbaatan wa xammaluuni ala al aktaafi arbaatun min arrijaali wa xalfii man yushayyi'uni ñu yenu ma ñeenti góor ci seeni mbagg sama ginnaaw ñiy gunge sama néew topp ci wa qaddamuni ila almihraabi wansarafu xalfa alimaami fa salla summa awdaani ñu teg ma nag ci fi ñuy jullee ñëpp dem ci ginnaaw imaam mu jullee ma julli goo xam ne amul rukkoo amul sujjóot ngir sàkkul ma njéggalul suñu boroom wa anzaluni ala qabri ala mahalin nee na nag wa anzaluni ila qabri ala mahalin ñu wàccee ma nag ci sama bàmmeel ndànk-ndànk yoor ma wa qaddamu waaxidan minhum li yulaxidani ñu jiital sax kenn ci ñoom ngir mu tëral ma ci sama màbbeel ñaari kuy jege lay doon sa doom walla ku la jege wa kashafa sawba an wajhi li yanzurani mu yëkkati càngaay li sax ngir xool ma xool bu mujj rongooñam wadd lan la ci teg mu daal jóg faxas ay loxoom mbokk yi xëcc leen suuf si rekk moo ci tegu xëy na waxtu wi moo xat ñu suul doomu aadama bi nee na dara lu ma fay dese lu dul samay jëf du ma fa du ma fa fekk ya ca topp nag topp ci ci munkar ak nakiir ak yeneen yu raglu yoo xam ne moo ma fay fekk ci lëm lëndëmu bàmmeel ak yu raglu ya ne yàlla nañu yàlla defal njéggal bu ñu fa toppee bu ñu fa tolloo ak yërmande teg na ci wax ne ñu dem ku ne dellu ci ay yitteem sama alal ñu seddoo ko mën na am ba ma koy fàggu def ci sama yitte jëpp amul kenn ku ci def benn coono ci ñoom sama sama soxna nee na wut na beneen borom kër bu dul man weccee ma ko bu doon góor bu doon góor noonu soxnaam bu doon jigéen it borom këram wut keneen wala wut ñeneen te noonu mooy doxinu àddina mbokk yi kon loolu yëpp bu amee dutee dund gi dafay continuer yi ñuy wax la vie continue nit ñi dinañ lekk dinañ naan ñaare sax fañu ñu lay ñaanalee mën na am léeg-léeg kenn du ko xàmmeeg xew mbëgte kon yow mi dund nee na bàyyil xel sa bopp te nga tuub dellu ci suñ boroom cheikhuna ahmadul xadim mi ngi wax ne kun zajtihaadin wala taxful wa kun fatinan wa kun qanuan wa za zuhdin wa tukkalaani nee na nekkal ko aji farlu te bul benn yoon te te nga doylu te dëddu àddina gi kam gaafilin wal manaaya fawqa jumjumihi law yaalamu lxayba xusnan taaxa min laani nee na ak bariwaan bariwaan ku sàggan fekk na dee ngi ci kaw bopp bi mooy jege na ko lool nee na ku sàggan kooku de bu xamoon dara ci ci kumpa ci xayb dana tiit dana jàq ba xelam jaxasoo law kunta tuuqinu maa yati amaamaka min hawlin wa min sakaraatin kulla iqaani nee na boo xamoon boo bàyyi woon xel dëgg-dëgg li nekk ci sa kanam ci yu raglu ci yu metti ci yu tiis ak ci sukuraatu dee boo ko xamoon dëgg-dëgg bàyyi ko xel lam lamma shtagalta bi duniyaan la baqaa laha kon sa yitte jëpp doo ko jël def ko ci àddina gi nga xam ne amul ak des luy jeex la lam nee na kon doo jël sa yitte jëpp def ko ci àddina juy jeex ji ci lan bi jamika al maala min qaasin wa min daani ci dajale alal rek ak foo ko mën a amee mu dox sa mu dox sa diggante ak sa borom ak sa diggante ak waaja waajal ëllëg mu teg ci wax ne kun mustaiddan li mawtin waxsha bagtatahu nee na nee na na ngay waajal na waajal dee ndax luy ñëw la te na nga ragal bette gu muy bette bette gu dee di bette nee na na nga ko ragal moo tax ñuy wax ne lépp loo bañ dee fekk la ca bu ko def donte cinq minutes nga koy def sax dee mën na la caa fekk kon nee na na nga waajal te ragal ak betteelam wa qahra nafsika admin kulla idmaani nee na na saxal saa yu ne di noot sa bakkan bi di ngir di waajal loolu wa fii fuaadika askin dikra axiratin nee na sa xel na nga ci saxal saa su ne di fàttali ël fàttaliku ëllëg yowmal qiyaam te xam ngeen ne mbokk yi képp ku faatu rek sa àllaaxira taxaw na isil qiyaamatu qiyaamataane kon nee na dëkkal ci sa xol ci sa xel di fàttaliku ëllëg yowmal qiyaam booy taxaw ak sa boroom ana say téere jëf tey lan moo ciy ne wa kulluhumu aatihi yowmal qiyaamati fardan boo taxawee ak sa borom naka lay demee nee na nañ sax di di ko fàttaliku mu ne laa taxtarir bi xutaamin anta tatrukuhu lil waarisiina ki ixwaanin wa wildaani nee bul waru sa yitte jëpp nga jëmee ci dajale alal joo xam ne fu muy mujj nga bàyyi ko mu nekk dona bu ñuy donn say njaboot di ko donn kon mbokk yi ab fàttali la woon ci loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu ko digal mooy ñuy fàttaliku lu baree bari lii di dee wax nañ ne Cheikhul Khadim mës naa laaj atan ana naka ngeen di waaj waajalee dee ñii di wax ne bu ñu xëyee jàpp ne duñu yendu ñii di jàpp ne bu guddee bët du leen sete mu wax ne kon dee dina leen bett noo gu jàll gune war ngeen a jàpp ne xëy na du dellu si kon yàlla na ñu yàlla dimbale ba boole ñu ci jaam mi nga xam ne dinañ ko waajal dëgg dëggi waajal te dajaleen ñu ak yërmandeem wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam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 محمد رسول الله حي على الصلاة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوة الإسلام إن من الأمراض والأوبئة المنتصرة fi wal mulawisa li ajwaai mujtamaatina alxiyaana inna siqatan mutabadala asaasun li wujudi mujtamain salimin wa matin wa innama yuaddu almujtamau saidan fi ma isa staqarrat xalaqatuhu ala ususi tumaninati wal ihtimad amma isa xaraja annaasu an xududi wasaifi wasaifi wasaifi wasaifihim wa axasu yaxunuuna xuwan axarin fa innahum yadduquuna bi quwatin jarsal inhitaat fi mu fi xayaati mujtamaihim hunaka ahkamun muxtalifa taxkumu albasar fi jamii suuni alxayaat wa likulli insanin nasibun minha qad kallafahu alxaqlu walfitratu waddin bi adaayi nasibihi minha kay tatajalla anwaar alsiqati waltumaninati fi samaai xayatihim wa laysa bi imkaani ahadin an yaxsifa hadihi takalif an xamuusi an xamuusi xayatihi aw an yaxudda annadara amma alayhi min duyoonin lillahi aw lilmujtama innahu la mafarra lil insani bi xukmi fitratihi an ittaayus al ijtimaai wa ala athari hadihi arrawabit tansaw xuququn laa budda li kulli ahadin min fiha min min ittibaahi silsilatin min almuxararaati walxawaanin siyaanatan lilmujtama an almusaadamaati walittirabaat wala yunkiru ahadun ana hunaka ala hilalan muxtalifa laha al asar aljalal wal والكبير في نفوس الفساد والانحراف العميق في مجتمعنا اليوم ولكننا عين إنما نمحن النصر نجد أن من أقوى عوامل هذه الانحطاط والشقاء وهذه التعاسة هي سيادة الخيانة على الأفكار والعقول ولهذا سدد الإسلام على الخيانة ونهى عنها بسدة يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ويقول أيضا عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه آيات المنافق ثلاث salaasun isa man isa xaddasa kasab wa isa tuumina xaana wa isa waada axlaf wa yaqulu subhanahu inna almunafiqina fi darki al asfali min annaari walan tajida lahum nasira kafa sajran wa waidan bi hada ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam baalu ak ñëpp baalu ak ñëpp tàllal suñu loxo suñu borom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom man-man te mooy borom sañ-sañ ñu ñaan ko ca bëggul lu dul ko ñaan ñu ñaan ko yàlla yàlla na gën a yokk ay xéewal fii ci réew mi ndax xam nañ ne jafe-jafe yi bari na fi lool fi ñu toll ci jamono ji ñu bari ñu ngi koy ñu ngi jànkuwanteeg moom wala ñi ëpp ci doomu aadama yi fi nekk ñu ngi jànkuwanteeg ay jafe kon jafe-jafe nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi moom te bari na ñu ngi jànkuwanteeg moom yàlla ko suñ borom woyofal gën noo xot sotti xéewal gën noo sotti jàmm gën noo ak dal ba mën a xéewlu ci xéewal yi nga xam ne moom dara taxut mu andi ko fi lu dul doomu adama yi képp tey ñun ci ay doom ci yi lañ bokk te fas yéene na duñ dañ mukk itam di bokk ci jullit ñi nga xam ne dañoo fas yéene jëfandikoo li nga xam ne moom la leen suñu borom sant kon nag yàlla nañu suñu borom dimbali moom ci kàttanam googee ba li jafe yi nga xam ne moom lañ nekk mu gën koo woyofal jam mu itam mu gën ko fee tuur gën noo soog yokk ak dal bañ xam fi ñuy teg suñu tànk xam fi ñuy jëm loola suñu borom mën na ko jàpp jàpp na ko yàlla nañ ko defal ginnaaw loolu itam ñuy tàllal suñu loxo di ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom kàttan te mooy borom man-man te mooy borom sañ-sañ du Modou Mountakha mii nga xam ne moo fi nekkat Serigne Touba te xam ñëpp xam nañ ne dara du itteem lu du doomu aadama yi ak lislaam ji yàlla na ko suñu borom gën a dëgëral gën koo kattanal ba li nga xam ne yéene koo def ci lislaam yéene koo def ci doomu aadama yi mën koo def ci definu kaw njortam tañ ànd koog moom te dajj ci ngërëmu suñu borom képp koo xam ne lislaam mooy sab tool itam yàlla na suñu borom gën a dëgëral gën laa kattanal gën laa manal gën laa sañal ba li nga yéenee def ci lislaam nga def ko ci defin ni koy sa njort te ànd kook ñu nga ko war a àndal te daje ci ngërëmu suñ borom loolu suñ doom suñ borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal ginnaaw loolu nag ñu dellu siwaat ba tey rek ci ginnaaw ndegam dañoo nekk ci weer wal dañuy soog a génn weer wi nga xam ne ka ci ka ka nga xam ne moom mooy ngën ji mbindéef yëpp te suñ borom won ne nu mooy ngën ji mbindéef won jox ko ay ay ay ay daraja yoo xam ne ci da koo jële ci dara darajey boppam jox sédd ku sédd ko ci loola di ñu woon te rëy teraanga ju yi nga xam ne moom suñ borom jof defal di ñu war di ñu jox woon ñun ñun ñii nga xam ne ñoo bokk ci aw xeetam itam teraanga ji nga xam ne am nañ ko ci kaw ci ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teraanga yooyee nag dara gënu caa rëy jikko moo tax waxtu wu nekk jàpp nañ ne liñ war a gën a seen sol na suñ bopp di ci gën di wax mooy jikko ndax jikko rek mooy tax ñu nekk doomu aadama ji nga xam ne moom la suñu borom bëgg ñu nekk ko li fee amuñ jikko yooyu yi nga xam ne moom la suñu borom bëgg ñu ne mu nekk ci ñun doomu aadama ji ñu war a nekk duñ ko mën a nekk li fee jaaduñ ci jikko yooyee jàpp ca te di ca dox loolu taxoon nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu xamal ne ëllëg ca bu ñuy peese jëf yi day am jenn jëf jiy gën a diis di yor jikko ju rafet jikko ju rafet joojee nee na da jënd jëf joo xam ne buñ ko peesee mu diis mun du munta diis ba diis ba mel ni ni jikko ju rafet di di di kon loolu moo nu won ne jikko ju rafet ju bata bàyyi xel la waaye nag buñ bàyyee xel loolu danañ gis ne am na ay feebar yu bari ak ak ak ak ay ragg yoo xam ne tasaaroo na ci biir Sénégal ak ci àdduna si te dara waralu ko lu dut mooy ba am ay jikko yoo xam ne dañ koo bàyyi fële di di ci di doxe na nañu neexe di ci doxe ni nga xam ne ni nañ bëgge bokk na ci jikko yi nga xam ne nag daa mel ni dañ koo bàyyi fee bàyyi wut bàyyi wuñ ko xel niñ ko war a bàyyee xel fas yéene ñu sax ci ñun itam ni mu war a sax ci ñun li ñuy tudde wor wor dafa doon loo xam ne dafa doon jikko ju bon a bon yoo xam ne li muy def ci ab société dafa dafa rëy lool te ni ñu yor Sëñ Tuubaa waxe woon ne jëf ji jëf ju baax jë ca gën mooy ji nga xam ne yëmut ci yow képp waaye dafa jàll ci jeneen loola noonu la jëf ju bon itam mel jëf ju bon li muy bon bon ci ki ko def bu de bu jàllee ci ñeneen ci lay gën a bon kon loolu moo tax nag xam nañ ne war nag moom du yem ci ku ko def du yem ci yow képp waaye day jàll ci nit ñi kon nag loolu moo tax war doon lu rëy rëy lu mat a bàyyi xel loo xam ne gis nañ ne li feeg sàmmawun sàmmawun ak moom bàyyi wor lépp loo xam ne wax nañ ko luñ ca man suñ képp lay kattan ñu def ko lépp loo xam ne digee nañ ko itam luñ ca man ci suñ képp kattan ñu ñu ñu def ko lépp luñ dig ni itam lépp luñ ca man ci suñ képp lay kattan ñu def ko loolu mooy tax dooma loolu mooy tax dund gi mën a jaar fi mu war a jaar loolu mooy tax itam société bi mën a mucc ni ñu war a muccee waaye bu fekkee na day boo waxee bu la neexee nga génn ci nam la neexee boo diggee nit itam bu la neexee nga génn ci nam la neexe boo séq ak nit dara yitam mën nga caa génn nam la neexee kooku loolu day andi musiba mu rëy ci doomu aadama yi mu doon loo xam ne kon lu mat a bàyyi xel la loo ndax loolu rek sàmmonteeg loolu mooy tax société bi nekk ci jàmm mooy tax itam ñu nekk ci ak dal mooy tax itam yoon wi nga xam ne fi lañ jë bëgg àgg ñu mën fa àgg niñ fa war a kon nag loolu moo tax ba wor nañ koy bàyyi xel bu baax a baax war nag mooy niñ ko waxee da dafa doon aw ay woo xam ne du yem ci kenn ki ko def waaye day jàll ci ñeneen ñi ci des kon nag loolu moo tax mu doon musiba mu rëy rëy mu mat a bàyyi xel looloo tax itam lislaam rëyal ko lool bàyyi ko xel xam ne maanaam bàkkaar bu tol noonu war na cee joxe ay atte yu dëgër yu yu sévère ngir ñu ngir ñu mën koo bàyyi loola nag moo tax ba yonent moo tax suñ borom sal yonent subhaanahu wa taala bi muy tere wor dafa wax ne yéen de yéen yi nga xam ne da ngeen a wax ne yàlla ngeen gëm te gëm ni da ngeen war a tax da ngeen taxawee ëllëg ci kanamam moo atte leen xool li nga doon li ngeen doon def ndax tege na fa mu war a tege wala tegewul fa mu war a tege bu ëllëgee day dana leen laaj li ngeen seqoon ak moom suñ borom ci wax ko ne ko yaay suñ borom yow lañ fi fas yéene nekkal yow lañ fi fas yéene jëfal ndax loola yéen a ci jaar ba tey wala ndax teg ngeen ko la waxoon yonent bi sallallahu ne ko li nga andi fas yéene nañu jaar fi nga fi na ko sante fas yéene noo bàyyi li nga xam moom itam tere ngeen ko loola itam bu ëllëgee danañu laaj ndax ñun sàmmonte nañ ak loola wala sàmmonte wu ñu loola ba du yem ci loolu waaye ñun ci suñ diggante itam danañ laaj li ngeen xam ne waxoon waxante woon ngeen ko seen diggante ndax kenn ku ne ngi sàmmonte la mu waxante woon ak digg mbokk jullitam wala nam waxoon ak waxante doomu aadama yi ndax wala ndax sàmmonte wut ak moom ni mu war a sàmmonte ak moom yàlla itam delluwaat wax ne yéen ni ngeen xam ne day maa ngi leen di diggal te dafa wax ne dafa tudd turu boppam ne inna allaha teg ci ya ya'murukum muy doon loo xam ne kon dafa waxtu ndig la ndigal la loo xam ne waxtu wu ne day sax amul jenn jamono joo xam ne dana teg ko ci ñun loola mooy lim nu digal mooy lan mooy kóllëre yi nga xam ne nekk nañ suñu diggante ak li nga xam ne waxante nañ ko suñu diggante nañ koy sàmm nañ ko war a sàmm sàmmee kóllëre yi tam ñu di ko delloowaat ci ci ñi nga xam ne ñoom nañ ko sëqal nañ ko war a delloo ak ñoom loolu tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu wax ne mun naafiq day xam nañ ne rëy rëy ci doomu ci ci ci ci lislaam la ku ku suñ borom taral ab atte bi ci moom la ndax koo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ borom da ko wax ne ko boo bu la bu la yàlla wonee ba nga xam ne kii naafiq la bu fi faatoo bu ko bu faatoo itam bu taxaw mukk ci bàmmeel mi di ko jullee bul ko jéggalul itam ndax doo ko doon te jéggalul nga ko lu mu bari bari du tax ba jëggal ko kon koo kooka xam nañ ne ab atte atte ba suñ borom teg ci kawam ci kawam diis na lool te yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamal nañu ne am bokk na ci mandarga yi nga xam ne mooy tax ñu wax ne kii ab naafeq la mooy koo xam ne bu la nett bu la waxee dara wax jam la wax jàppal safan ba ndax lam la wax doonul loo xam ne lu lu dëgg la doonul loo xam ne lu mu teg fenn la doonul loo xam ne itam lu mu jàpp la doon na koo xam ne itam boo ko wóoloo ci dara da lay wor doon na koo xam ne itam bu la diggee leen dinaa defal dara booy boo nga bañ nga bañ caa def sa xel ndax du ko def loolu nag moo ni wan ne kon mandarga yii nga xam ne moom la tudd te bokk tam bokk ci wor kon xam nañ ne wor lu rëy rëy la ndax bokk na ci mandarga yi nekk am naafeq te yàlla moo ñuy xamal ne itam ne naafeq de bu ëllëgee xur ya gën a dugg ya gën a xóot ca ca aj ca sawara foofa la ñuy dëkk te duñ am kenn ku leen di mën a jàppale ban mën a génn ca loole kon yàlla nañu suñu boroom gën a dimbale ba li nga xam ne moom la ñuy wax ak di ko saman di ko di ko jàppante ci suñu diggante mu doon luy dëggu doon loo xam ne lu ñuy doxe la doon lu ñuy waxe la waaye bu mu doon loo xam ne dañ koy wax ba noppi di dox yeneen jéego wala ñu jaar ci weneen melokaan bu bokk sëg bi nga xam ne moom lañ war a jaar loolu suñ borom mën na ko yàpp jàpp na ko yàlla nañ ko defal rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmatan innaka antal an bi rabbikum fa amanna rabbana سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 هل أتاك حديث القاشية وجوع يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من دريع لا يسمن ولا يخني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية laa tasmahu fiha laaxiya fiha aynun jaariya fiha sururun marfuatun wa akwaabun mawduca wa namaarixu masfuufatun wa saraabiyu mabsuusa afalaa yanduruuna ila al-ibili kayfa xuliqat wa ila as-samaa'i kayfa ruficat wa ila al-jibaali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutixat fa dakkir innama anta mudakkir lasta alayhim bi musaytir illa man tawalla wa kafar fa yuadibuhu llahu alazab alakbar inna ilayna iyaabahum thumma inna alayna xisaabahum allahu akbar allahu akbar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 wa amma saa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis allahu akbar allahu akbar sami allahu liman hamida rabbana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 asalaamualeykum. asalaamualeykum. أجرهم نصور كونه أبس الحرس وحده خديما لخير الخلق هو نسير يجوب لي الكافي به من عصى العلا عما نهاه بصوري قصوري خلت والأحل حني تفرقت لمدح الذي عنه المديح قصير خرور ولا خر النصارى بكيده وظنوا سنونا والسنون خرور لرب التفاتي لا لهم تائبا له من السلب والآفات وهو غفور له الحكم من حيث التفاتي لخيره ومني له عرض علي ضمير له ضد صعبين وأرجو رداه قريبا لدى الأهداء هو بشير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في البحر هنا دور أغادله بالمدح وهو بطيبة وإني له جاري هناك يسوم أغادله وهو الوسيلة سربدا وفي القلب مني من رضاه السرور وخاطبته في البحر السير ينتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى طابت لي النفس هاهنا وأنت بمديك الصلاة جدير فصل خالقي روض الخدال محا بما أهوب به للبر أنت نسير فصل خالقي تهجيل أو به من يدي فساق على المولى الكريم يسير عليك الصلاة منه جل مسلما مع الآل والأصحاب منه بدون ومنه صلاة مع سلام إليك يا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 اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحمنا بترك المعاصي كلها ما بقيتنا أبدا وأن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا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 الأفعال والأحوال رضيت عنك فارض عني كرمام لوجهك الكريم والتكرمام حجبتني عن الهدى حجابا يا من نحى السمعة